dal leen ak jàmm seen chaîne la Dakar Post su fekkee sa première fois la ñu ngi lay ñaan nga abonné ayca dañu leen di présenter seen premier récap du jour vite fait di leen wax ngeen ànd ak ñun gannaaw bu ñu rajee Sitor Ndour à vie Malick Ngomé Babacar Diop 5 ans Aboubacry Dramé 2 ans ñëpp dañoo manko muy lutteur amateur et communicateur traditionnel bëgg Alioune Sarr jóge fii commencé ko nag si Gris Bordeaux bi réclamé le départ Alioune Sarr na fi jóge parce que yéen ñi dictature la HBK Mbaye à ses propos réagir na ci mais même si il aime le CNG il doit quitter Moustapha Gueye l'ancien lutteur moom aussi nee na beaucoup à cause de cette dictature Aziz Ndiaye Gaston Meng Yekini y compris moi le célèbre chanteur Baba Mal reporte à une date ultérieure son concert prévu le 18 avril prochain au Zénith de Paris. Un nouveau cas de coronavirus détecté ce mercredi 11 mars à Touba. Wajis sénégalais la jóge Italie il est actuellement isolé et hospitalisé à Fann. ginnaaw bu jur bu góor bi génnee àdduna ñëpp xam ko mooy ab sëriñ Abdourahmane Tilala Fall kii di doomam Abdou Aziz Tilala a été désigné et continué ses œuvres. Liverpool de Sadio Mané est tombé devant l'Atlético Madrid pourtant def nañ lu ne ba àjji Atlético mais góolu Liverpool bi a commis l'irréparable. ñu jeexale ci affaire Mamadou Diop Isaac et la chanteuse Dieyna Mamadou Diop a été déféré et les parents de Dieyna propose une solution à du jóg mu nangu grossesse bi puis la marier jaa ngeen jëf loolu nekkoon seen premier récap du jour du mercredi 11 mars ñu ngi leen di ñaan ngeen réagir ci commentaire yi.